ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes terres euh, euh, pour de financement 100 millions de francs CFA femmes 83 villages de Toubaï. Euh, Moustapha mi nga mu ngi sama Té Il y a de cela quelques mois 8 mois. nous na fi si mairie Touba man ak pour délégation bi nañ région nous avons aussi gërëm di sant président Macky Sall bi nga mettre à disposition jeunesse ak jigenu Sénégal 30 milliards de francs CFA pour jappalé les ñi ak ndaw ñi entrepreneuriat et mangi ngi euh, rafetlu euh, région de Durbel bénéficier de 1 milliard 650 millions de francs CFA business et nous avons 1 milliard 250 millions de déjà si curry et nous euh, avons décomposition yoy nous avons ni département Mbaké et la population nous presque 1 milliard de francs CFA jubel nous 200 300 millions et Bambay un lu de 250 millions et si vous lolu un nañ ci lu nga programme ASC un projet un ASC bi nga xamantene wa cave, lañ financement de 500 millions de francs CFA dugul nañu Touba lu de 30 millions de francs CFA amna programme renouvellement camion frigorifique bo boo jëlee ci Touba amna na walam ndax jënd nañ ay camion frigorifique Ben bu toll 36 euh, millions de francs CFA. enfin def nañ li nga xamantene moy comité d'investissement euh, bu région Djourbel ak gouverneur Djourbel il y a de cela deux mois et dougal nañ lu toll 471 millions de francs CFA si région Djourbel bi et Touba moo si ëppale lu toll 197 millions de francs CFA bon bolé enveloppe yooyu yëpp dugal nañu ak tay 100 millions tay fàtte woon ko donc ñu ngi ci 1 milliard 700 millions de francs CFA yi nga xamantene région de Djourbel bénéficié wu et mo nek deuxième après région de Dakar département de Pikine donc lolu firnde ni euh, euh, importance euh Touba. ak Djourbel ci politique économique bu ñuy def ak président Macky Sall lu ñu sante ndax buñ ñu fiy ñëw euh, bu ma fiy ñëw ci njëlbeen lu ma santoon mooy ñëpp jàppaleel ñëpp amul xaj dëgg naa nit ñi ne Touba dafa difficile dafa métti waaye demal euh, doxal ak sa sago lu ñu la jox nga financé leen boobu bu ma fi ñëwee jour boobu sëriñ mun na ko euh, seede am nay jigéenu PDS yu jógoon ne ñoom kenn du leen financé ndaxte PDS lañ bokk man lañ jox la ma seen dossier te financé naa leen. am na sax ñu ma attaqué ndax loolu waaye ñun lu ñu def dañ ci dëggoo te président lu mu ñu sant mooy ñu financé ñëpp amul xaj ak seen loolu lañ def mangi ngi jeexal kaddu gi di remercier euh, sëñ Moustapha Diakhaté euh, mi nga xamantene mom euh, moy chef de cabinet président Macky Sall mom moom waxon projet bi pour jàppale jigéen ñi moom moo si Jap ak ku Abdou Diaw bi nga xamantene ñu liggéey ba préparer programme ndax financement du financement kese amna 50 millions yoo xam ne day ñëw pour incubation le ay atelier pour formation renforcement de capacité équipement pour jigéen ñi bu ñu jotee financement ñu dem fofu ñu liggéey et am partenariat ak. 3FPT ak dame euh, dame Diop bi nga xamantene ne waa la dëkk dina ñu ñu financé yëpp dina leen former et bu soobee yàlla euh, bu élection yi passé ci jàmm salam dinañ fi ñëwaat def formation yi et financement yi bu sobe yalla dinañ ko yokkat ndax président Macky Sall renouvelé na déjà 30 milliards yi jot nañ ko mu ngi suñu compte après élection yi dinañ génn waat et waa Touba dinañ amaat seen wàll minimum dinañ ci amaat 1 milliard 500 millions de francs CFA. waaw comme ni nga ko waxee euh, am nañu ay euh, euh, remontée d'information nii am na ay ñoo xamante ne ay difficulté j'afé j'afé jafe jot seen financement si banques CMS ak BNDE bu ma waxee man mi bu ma fi pare naa dem léegi BNDE ak CMS pour xool réalité bi lan la li ma xam d'abord sama équipe lu ñu ma wax ak li ma jot si banques yi mooy am na ñoo xamante dañu jot financement autonomisation 100 000, 500000 500 amul benn problème bu ñu ñu ngi parce que nous caisses, nañu de 1 milliard 200 avons quelques difficultés de nous déposer projet projets. di si une transformation produit agricole wala élevage wala aviculture wala sax mécanicien ak mon yi Nous avons 5 millions wala 6 millions ou 10 millions déposer si Nous déposons, nous avons Nous des def ñu Nous ñu ay facture banque ñooñ bu ñu ñëwee foofu pour jot seen financement dañuy ne banque bi déedéet defatuñu lii dañuy changé wala joxuñu xaalis bi yëpp amuñu facture te loolu loolu mooy li ñuy wax ci tubaab détournement d'objectif xamu nañu ko xes wolof maanaam lu ñu la jox nga utiliser ko pour leneen lu dul loolu te loolu euh, képp ku ko def dañuy dagg sa financement moo tax ñu ne banque bi na bloqué na xaar d'abord ba nit ki lu mu waxoon lay def kii dafa ne aviculture lay def ñaata poussin la soxla ñaata abreuvoir lay jënd ñaata euh, euh, aliment lay jënd ñu jënd ko jox la ko ku buggul nga bàyyi ko foofu am na ñeneen ñu ko soxla. benn question bu déggee bi laa ba ne ma ko commencé loolu laa ko man xam naa dinañ ma posé question boobu barki démb laa jot dossier yi euh, léegi

waaye dama ne duma ma leen euh, retardé ndax def nañ seen kii jot nañ seen euh, financement génn xaalis banque si banque bi ma ñëw leen bu fekkee dañ doon politique duma fi ñëw ndax 100 millions dem fi ñëw ndax 1 milliard 700 te dugal nañ lu toll 30 milliards si réew mi pour 183 000 bénéficiaires. ñëpp dégg nañ ma fu nekk te bu soobee yàlla président Macky Sall du 100 millions moo koy tax a gagné élection yi président Macky Sall lu mu def si réew mi ëpp na 10 000 milliards cinq dernières années yi Ila tuba ngi ne ak yeneen projet ak des ak ñu ñun lu ñu def lu tuuti la bu soobee yàlla euh, élection yaa ngi ñëw jàmm ak salaam dina jeex dinañ fi ñëwaat bu soobee yàlla.